benn famille boo xamante ni nii la mu roog laa en lambo bu nekkoon benn nga dugg mu yem mais xoolal ay xotteeku xotteeku la bàyyi ci diwaanu Thiès te Macky amuloon temps woo leen jubóole leen noonu toogal autour d'une am démb amu fa am inauguré mbumbaay mburoog soow gloria baa ngi ñëw daal di dem ñibbi <laughs> baarale meew mi wóor. jubóo nekk makki. meew bi wóor. Gloria kañ wóorul. baarale mi ma mos naa dem fenn ñu tuddee ko doom mu def nii leader yi muy di xeex di xeex bay daanu ci kaw muy def nii di di di pousse balaa ñuy gaañ xale bi waa këram bu ñuy reyante du àtte ko démb sax te démb la amoon occasion pour dajale waa Thiès defu ko loolu la journal bi wax dégg fitna gi nga xam ne ni mi ko dañ ko nag mooy nervi yi ñoom lañ jamate encore baaraamu tuuma journal bi nee na ginnaaw Fuuta Tampi léegi nag c'est Thiès Tampi qui prend le relais dégg nga Madiambal Diagne nag mi ngi nii mujj na am autorisation ministre bi plainte contre Souleymane Téliko waa ji ci kawam la gaa yi jëm de dégg nga ci soow mi nga xam ne woon naa sunu démb mburu waaw soow maa gënoon a bari c'est normal sax xam nga soow ndox la mburu mi bu néewee tuuti ponse bi mujj lóor say mi ngi ay militant Pastef ak PDS lañ jàpp caxat-caxatal Macky Khalifa l'impossible alliance. mais dañ ci waroon def entre nekk. non ku nekk ak sa analyse gis nañ gars yi ñu ngi analyser. Hmm. xaaf dina dem léegi mais xanaa bu doon dem xam nga fan lay demee. Hmm. bi ko tanoor ne punkal bi bëggul sa tournée yi ngay def. Hmm. Macky menacé waat ko soo bawul lii lii mu bañ. waaw xalifa xanaa bu doon day négocier yaas. Hmm. mais ci biir kaso ba lay négocier. dëgg dëgg. Hmm. mais yow ku nekk ci biir kaso ñu négocier ak yow nga bañ. Hmm. yow di nga dem ba moom sa bopp ñu lay woo ngay ñëw. non xalifa matadeewul foofu la wax ji nekk parce que moom soo destin politique est entre les mains quelque part de Macky Sall. non ban entre mais non waaw. parce que euh, xam nga lu tax parce que kii mën na def usage. non non euh, non du c'est pas xalifa. Mhm. Mhm. ku ñu nangu samee. nangu sa député. Mhm. xañ la présidentiel. Mhm. dugal na kaso. sa ndey souffrir ba dee. Mhm. xaaf kay daa baax sax moo tax mu góolu waa ji këram. mais am na ñoo xam ne bu doon ñoom la. punkal bi da lay jaale si ñu na ñaan mu ñëw waaw les ces droits civiques et politiques. ko recouvrer il faut mu jaar ci waa ji quoi loolu loolu foofu la ko waa ji téye Khalifa Sall n'a plus rien à moom kuttu nañ ko ba pare. Khalifa Sall. lan lay perte ku def quarante plus de quarante ans au pouvoir lan lay waaye yow. loolu góobu ko su ma bind ah ah mooy kon kon nag en politique on dit jamais jamais. man de yaakaar naa ni Khalifa moom cette fois-ci. Mm-hmm. dina nekk l'exception. il va mm-hmm. mm. ko. am na ñu koy laam-laamee mu ne. na ñu koy laam-laamee de. waaye waaye nañ bàyyi laam-laamee ji waaye Khalifa. politique à ses ma bind nga war ñun ci. Mm-hmm. li mu bañ di parti socialiste dina ko nangul mburu mi. Ah. nga xam ne ñaari at ko fi pour mu dem. donc su ma bind nga war ñun ci. déferlante orange et beige marron le mburu ak chante le mburu ak le soow renforcé par le gloria non baarale voilà pardon baarale oui baarale oui oui oui yaas meew mi wóor meew mi wóor gloria ou baarale baarale oui vive le consommé local l'écran fii la wala tubaab yaa ko def non l'écran tubaab bi la tubaab bi la non ñun baarale ne ñam ok c'est bon mhm. Seydi Gassama Ndeju xam nga actuellement ñoom ñoo sonal dëggantaan yaay le pouvoir ce sont les activistes ay ñoom Karim Abdou Karim Gueye xurum xaax Dame Mbodj Clédor Sène Guy Marius Sagna ñii la parce que entre politiciens. Mm. ñoom mën nañoo def combine à tout moment. absolument mm. absolument. <laughs> barki yonent bi. Mm. foofa na gars yi xoolal. bilaay idée feeñ le mburoog soow mën nañ ko à tout moment. responsable politique boo fi gis muy xas opposition bi bàyyi ko ba pare sax Ahmed fii. ah. eh attention de gis nga Sonko mii. lii nii li ko ko du dara de la constance. mais bu teyee nga mel nii bu sa nit ñi bu ñuy dute ngay dee. looloo tax saa waay mu ne entre politiciens ils sont prêts à toutes les combines. Mhm. alors que activistes yi ñoom moo tax ñu yàq seen der. naan leen dañoo tayal waaw bëgguñoo dem liggéey ñeng ñeng ñeng dugg na fi génn fi patati patata dégg lamb ji yéen taxaw leen rek dinañu ñëw ba pare ah, ah, Ahmed foofu war nañ cee yokk et la majorité silencieuse c'est les activistes et la majorité silencieuse qui sont les plus grands risques pour le régime en place mais cette majorité silencieuse aussi mhm. gars léeg-léeg dañ fay dugg yow Siré mhm. Sud Quotidien ño il calme le jeu Antonio Antonio calme le jeu. Toño notre ami Yaas Toño. oui Toño notre ami. oui ça c'est notre ami. oui. Toño dafa ndeysaan dafa làqu ji woon. Toño. Mhm. waaw ah en tout cas day moom day xam nga li nit ñi doon wax ci marché. Mhm. boo ni ñuy tëj il a démenti. Mhm. nee na violence yi nga xam ne dañ koy def ci ay ndaje. Hmm. mënuñu koo qualifier d'acte terroriste. dégg nga loolu ah, baax na. mooy li ñu fi doon expliqué démb. Mhm. loi bi ni ko opposition bi. Mhm. expliquer le le peuple manifestation léegi dañ koy tere ku ko fi defati ñooy terroriste. mais moom ce qu'il dit c'est cautionner la violence ah aussi. ah non non non je ne le pense ah, pas. lu mu wax de actes des violences commises dans ah. un rassemblement. ne ah. peuvent être qualifiées d'actes terroristes. léegi léegi. xoolal rek bu baax. ah <laughs> violence yi kat léegi bu ñu amal ci rassemblement. waaw démb mais ñooñu dañ leen attaqué mais dañ war a boole nag. waaw fa laa jëm. ci war a boole. source a moom nee na lenn rek lay moom li muy xaar. Mhm. moo ñu bind ko. Mhm. Ah. non. absolument Abdoulaye Dieye wane mhm. ci wàllu mobilisation. nee nañ président ko ba ca xanaa président nag punkal yi day def leen ay coxeur de. ak <laughs> est-ce du potentiel Gloria. Et, eh, eh, eh, non moom ak moom ak Habib Niang euh, président moo leen tëccal seen. daa bëgg dama bëgg ñu balee ñoom idée seen génération taal si la jox xale yi quoi ñu dawal. kaay kaay Siré kaay Siré balaa nga leen a bale kaay. les leaders virgule. Mhm. Moussa Bagnès laay toppandoo. des xalif politique. Vous avez lu l'article, l'article là. Vous l'avez pas lu. Oui. Il faut lire les livres là. Il faut lire les bouquets. Yes. OK. OK. Voilà. Donc, xam nga xalif les xalif généraux ci affaire u diine tarixa yi dañ naan kii bu fi jógee kii moo koy organisation gis nga mbir mi ni muy jàpp mais ñii ñoom dañoo def seen bopp ay xalif politique waaye yow ban parti politique nga ma sa gis yaas hmm. ñu dem congrès ñu yeesal parti bi remplacer le patron ak keneen nga resté ba léegi nii ci biir partie bi comme militant wala comme cadre léegi-léegi booy benn ñaar mais ñii dañoo def seen bopp ay xarit politique ay nit ñoo xam ne yow daal da ngay jékki-jékki rek jàpp Macky Sall xas koo xasa xasa xasa xas taxe ka da reykatu nit wax ko lu ne wax ko lu ne xëy benn jour waxtee plus proche ne leen mburoog soow. il peut peut. mais mais. Eh, idée. Eh, imagine mu la mais yow ba pare say nit tamit jàpp Macky Sall ñuy xeex ci réseaux sociaux yi di ko yekk lu mel ni xamee gars yi Idrissa Seck boo xoolee seen publication yi yéegal ba ci kaw nga dem yu yu daaw yi yu daaw yi. après nga nga wàcc da nga naan lii nan la ko nit mënee. jam ñaajo. et Jam ñaajo. loolu quotidien yéen kaay ñëw ak acte bu njëkk bi ma jambal dañ koo daanoo dëgg loolu dëgg acte deux ah ma jambal ak Souleymane Téliko Malick Sall la mu santaane mooy magistrat bi nañ ko topp ah oui ko topp moo tax suddu ne Malick Sall libre Téliko mbete ku ñu jàppoon otage Fadel Barro jàmmi Kaolack candidat la di voilà lii lii nii la war a demee na xale yi génn paa yi ñu dem leen retraite xale yi jël affaire yi ñu marre des politiques te gis nga gis nga Siré waaw gis nga cette révolution de salon là les plateaux de télé les communiqués de presse les conférences de presse waaye loolu soppiwul réew Ahmed Aïdara toog géejawaay rek ay lii du yoon ay ay fu ñu la fekk ci garab yi yaay amee animation bi boo toogee ci rajo xam nga coow li coow li lan la is mooy li Farel def balaa nga naan naam ne fa. Mhm. da ngay wàcc jàkkaarloog Mariama Sarr. Mhm. waaye Mariama Sarr liggéeyul inondation bi ci diwaanu Kaolack ñeeg ñeeg ñeeg. Mhm. wax rek. du ko fa dindi. jëf a gën wax de. merci <laughs> tu as deux points de plus pour le prochain débat. na del yaas l'observateur ñëwal ñu ci tabaski. Ali Saleh ministre xar mi ngi nii dégg loolu coowal Audrey bi Bizarre Souleymane Sidi Seck journal bi nag dellu si na ci mbóot mbóot yi nga xam ne moom moo am ca lëf la viol ak viol dañoo déggoo déggoo doomu doomu Cheikh Yérim Seck bi ak gone gii nii mu bokkal l'école classe la ah bi yàlla dogal na dañ koo mujj téye dégg nga libération ñëw ak ñun ci xoolal Macky Sall annonce di Gloria dans le bureau Sow. wala punkal lii moom Baba Diaw ak Moustapha Niass ñii moom ñii ñii ñii bu doon def conférence de presse benn presse warul dem ñii ku ci dugg dee punkal yi di xeex nii sol rek <laughs> xoolal suñu alalu géej gi blanchiment xoolal yi xoolal yi chinois yi dégg loolu le thème mooy nañu xoolal le train bu soow triomphalement en gare même bu dee sax bi gars yi di départ bi am ñu ñuy remarqué Dakar am na ñu yóbbu de Macky moom bu dee moom moom mën na moom addunaam yëpp yëpp yëpp yëpp fu mu jëm jël ay nit ndakaaro ak banlieue bi yóbbu leen ah bisimilah yow daal yóbbul rek ba 2024 la CNK ñëw ak ñun ci du Gloria s'est ajouté au Mburok Sow mais ki est le Gloria. oui chacun va me donner un nom oui oui Siré. non c'est Non, non. Omar Sarr, il est déjà dedans. Oui, là. Ah. Moi, je dirais que c'est toi. oui. yow tu, tu as quatre points de moins. nee nañ xalifa. kan. xalifa sax daanu nga oui Ibrahima. ah Ablaye Wade. Ablaye. Wade. Wade. le PDS alkaarima xanaa man su ma daanoo gis nga def. ah waaw baax na. oui oui le PDS ah Birame merci dégg le PDS le PDS oui. alkaarima c'est une question j'ai apporté. Mame Diarra Fam tontul. la réponse. ne neel ma maa war a wàddi Sarr mu tontu. kii ah, Omar Sarr la wax kii Omar Sarr la wax Omar Sarr rek ci biir. Mhm. yow amee ay dara nga wax yow. man xalifa laa waxoon xalifa. ñaar ñuy PDS. mais mais Ahmed boo gisee. Macky sax moo leen gën a jege. mais mais Macky sax lu mu wax dafa ni euh, meew bi. yokk na ba pare c'est-à-dire que loo xam ne ñëw na ba pare d'après style bi mu ko waxee. waxtaan nañ fa ba pare. non non non maanaam message subliminal la woon daal ni mu waxee. waaw mooy affaire bi dugg na ba pare. déedéet non daanaka la wax daanaka. dañuy bi daanaka gloria bi. dugg na ba pare. mooy presque comprendre mi gloria bi léegi dugg na ci. sangoona mburoog soow ma soow ma. grand place nañu. ma lay jóob moom yéeg na sax ci kaw mun a sow ah ma responsable la. ma lay jóob impôt mooy direct ñu ñëw ak ñun ci quarante mille hectares at bune ne la Sénégal di perte ci forêt lii tamit lan la nii Dakar Times yi ñun ci wàllum inondation yi xaalis beeg réalisation yeeg. diggante Pikine ak Guédiawaye waaye coow li du loolu de guerre ba commencé na ci suñu pétrole beeg gaz bi. Mm. parce que waa Amérique ak waa France Washington ak Paris dañoo am léegi xel mu tey ne Macky Sall mi dafa bëgg a lalal tapis rouge aux Russes du président Poutine <laughs> samay kaddu de <laughs> samay kaddu. baax mm. ngi nee na su bomb xeexee ak moom mu jubandiku. dóor ko doo yu mitti moom seen moo bii doy na waar de sàcc yi métte ku muy mbugal nee na bu bombardier xeexee mu mbugal ko taxawaayu antibadacier xam nga loolu ci làmb yow yaas taxawaayu antibadacier xam nga gis nga mbëri su arbitre di waaj a siffler bañ def nii seen tànk yooyu ñu dugal nii donc dañ koy samp ci biir suuf si nii nii la ñuy def nii samp ko ba mu dëgër. maanaam mooy kii fas yéene wu la bougé. Eh, dëgër seen bopp. waaw voilà. Mhm. c'est le taxawaay dëggal sa bopp. <laughs> dëggal sa bopp waaw <laughs> voilà. mais Ameth. oui ma la bëggoon wax benn secret ci ponché. xaw ma dama daan ponché <laughs> gis nga ponché su fekkee bugguloo guu bi deñ doo ko def ci frigidaire ci congélateur nga koy def parce que boo ko defee ci frigidaire. <laughs> waaw su yàggee tuuti. <laughs> boo ko génnee guuba dafay dafay changé mais mais poñse dëgg-dëgg bi may wax nii du ànd ak gloria baaralee la àndal wasalaam. ah te dangay dégg nii nii. non nañ wuy ma. Mhm. nañ dem eh. maj na xiif de question moom la ñu ubbee ah. gloria. waaw d' accord. le fameux on passer la publicité ah c' bien. mais Macky Avec un design audacieux, une calandre racinée, un système d'allumage automatique des feux et des finitions haut de gamme, la nouvelle Hyundai Tucson affiche une nouvelle carrure. Elle se démarque ainsi de son prédécesseur. Bénéficiez dès à présent de ce modèle avec une garantie de 5 ans ou 100 au kilomètre boulevard du Centenaire de la commune de Dakar. Caetano, représentant officiel Vous aimez la musique Vous ne pouvez pas rater un épisode de votre série préférée. Vous aimez apprendre et vous former Vous aimez tout ce qui vous fait profiter de la vie Alors, faites confiance à votre... Production ngeen bës bi bokk ci programme national international